mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursaliin seydina muhammad xaatimu nabiyiin imaamul mursaliin rasuulu rabbil aalamiin sëriñ ñu ngi luy nuyu di nuyu njabootu sëriñ Fàllu gi fi nekk yépp di nuyu goog sëñ Modou Moussa Falilou di nuyu taalibe yi fi nekk yépp góor ak jigéen di sant it ci bis bi ñu xëy jagleen ko sëñ Modou da ngeen a delloo njukkal rekk boroom wax naa ci band yi weesu ne leen sëñ Falilou dane woon benn bis rekk ko ñor muy bisu sëñ tubaab yi benn dëkk ko ñor muy dëkkub sëñ Tuubaa bii yenn jàkkaa ko doy muy jàkkay sëñ Tuubaa jii sëñ Modou ne ko man dama laa bëgg wutal bis mu ne ko man de bisu borom baraag bi laa mu ne ko waaye man àgguma foofu ci yow laa yem moo tax mu bëgg laa wutal bis mu ne ko bis boo ko bëgg a def mu ne ko Kazu Rajab mu ne ko ànd naa ci ak yow mu def ko ba kër su nañ bàgg si fii te li gën a jafe ci àdduna mooy sos wax lu ñu waxoon dafa yomb bayaat dafa yomb waaye sos muy dox ba ak si fii lu jafe la moroom ak jag la rek moo ko yàlla loola nag sëñ moo ni ci boppam sëñ Fallou dafa def ci moom loo xam ne ah néew ma defu ko ci kenn de waaye li ma gis ci moom de gisuma ko ci kenn ndax nit ku am diine la nit ku am ngoor la nit ku woyof la nit ku bëggi bokkam la du fëkk benn taalibe moo xam bi ci daara ji la moo xam taalibe bi tokkoo bi loolu jafe la nit ku mën a sos lu baax it la buggul daray kenn mën naa koo tàmbalee ci bi ñu sañ fii mu tuddee ko xaayam danoo xëy rek jóge ndindi mu ne fii de dama fiy def kër mu fekk fi toolu gattax ak i salaam ñu gor ko ba mu àgg mu tàppaat ko yàlla dogal mu toog ci dimb gi nekkoon fii maag Moussa Sànqe ak góor gu ñuy wax sugu sëñ Cheikh Mbacke dawal otoom ba fekk nu fi ne looy bëgg a def fii mu ne ko kër mu ne ko ñaata mètre nga natt mu ne ko juróom fukki mètre sëñ Cheikh ne ko def ko téeméeri meetar dana mujj jafe fi lool sëñ Modou ne ma ah juróom ma ne ko gannaaw làkk rek la ak ñàkk kay sëñ bi loolu nag ma ne soo ko def sax ñaar téeméeri meetar ñu soog koo yokk def kër gi téeméeri meetar te booba mënoon na am ci biir Touba ay kër mu daal di koy fab na quartier bii de xaayira laa ko tudde te loola booba mënoon na am kër yu jege. ci biir Touba mënoon na am jege ci biir Touba waaye bëgg yëfi boppam bañ a jaxasoo ci yëfi kenn dara wala luy indi coow ëllëg yi si biir moo taxoon mu sañc xaayira gi keroog muy sañc saam danoo xëy di bëgg ñëw ci sëriñ bi mu di ko ko yëgal Fallou Cissé la ko mu Fallou Kébé dikk ne ko kaay wuyu sëriñ bi mu jógee nit ñi ñëw fekk sëriñ bi sëñ bi ne ko sëñ Abdourahmane Jaxate dafa faatu ca Mewdu ma bëgg nga ñëw demal ma ca mu ne ko man dey dama bëgg gàddaay mu ne ko gàddaay day yont bi da koo defee Màkka dem Madina Ceerno da koo defee ci Bawol gii moo ko may Daaru Muus mu ne ko may de damay gàddaay mu ne ko foo jëm mu ne ko diggante Touba Mérina ak Yabal gis naa fa àll boo xam ne bi daal dama faa bëgg a dem su ma ci amee ndigal mun ko boo demee bul laal yëfi kenn la nga fa am na la doy lañ la fa jox na la doy demal ma meewum dëgg ba ñëw mu dem meewum du ba ñëw keroog sëriñ bi daal koy ne mu ne ko ndax am naa ndigal mu ne ko am nga ci ndigal ñu dem ba ndikkee ci sàngoone sàll dugg ci oto bi bi ndikkee baax si ci saam ci tund da ne taxawal ma wàcc ndax pël baaxul sëñ moon ne ko déedéet man fu ma jógee ànd ak yow daan na ko bàyyil ma jëkk wàcc daan di wàcc daan ma seex wàccal ma wàcc mu ne Badde Njaay wàccal mu wàcc mu soog ne sàngoo ne wàccal ñu daal di dëkk boobee mbaar mañ fa dëkk def ci bépp ga sanqale yi dañoo la jël ba nu noo génne mat la yi ci bitti fanaan fa mu daal santaane gor bi ñu defe woon ne saam du sottee noonu mu gor ko lépp mu tëdd mu sanc ko jënd ab camion di ko roote si Daaru Muxti di indil waa Sàmm ba camion bi yàqu mu jëndub tracteur di ko rootale waa Sàmm ba tracteur bi yàqu mu ba tracteur bi yàqu mu soog a ñëw fii lu doog ndindi sëñ bi ne ko Senghor de dafay ñëw tey ba ñu dikkee Senghor dikkee ne ko dama lay décorer mu ne ko soxluwuma décoration mu ne ko loo bëgg mu ne ko dëkk bee ma sañc te ñee ma fa nekkal samay nawle lañu sëñ Tuubaa mii rekk laa leen gënee ñu nangu faa toog booba tey may ñaanum ndox awma ko moo ma gënal téeméeri décoration ndax décoration bi ma am du du du du du ba ba àddina yu tukki muy sëriñ li bi mooy sama décora mooy sama médaille oh. Senghor ne ko am nga forage mu ne ko ah, wax nga ko de alxames jot mu jóge fii dem dakaar naka nu yéeg building rek yem ci Moustapha Seck ministre hydraulique mu ne ko sëñ bi ñay gas sa forage ba dem nañu compagnie Sasif ñoo koy gas dem nañu nu daal di dëppaat awaat Kébémer jaar Ndoyeen jaar Touba Mérina dikk saam fekk fi tubaab yi sëñ bi ne leen ñu ne ko forage bi lañuy gas mu ne leen nit bu ngeen koy dee gasalu forage da koy laaj fu mu bëgg mu def ko fa ñu ne ko foo bëgg mu dem ci sowu ne leen defal ma fii forage bi ñu def ko loolu lépp ci jëfi sëñ Moodu la lu mu mës a sumb lu ne ci àddina yaakaaru ca kenn ku dul baatub sëriñ Fadilu ak pexey boppam te lu mu mës a sumb lu ne àgg na dara loo xam ne di mës na ko sumb naax say amul waaw am na fit am nag dogu gëm na sëriñ Fadilu lii nga xam ne moom lay def lépp man maa ko ko laaj danoo dem Amérique asuwaay dikk ne ko nee nañu bu àllarba dañ lay génne sëñ bi ne ko àllarba ji da ñëwagul mu ne ko ah, mu ne ko lool la wax mu ne ko du talaata la eh, bëggoon a demee mu ne waaw mun ne ko yóbbu lim bi soppi ko ba aju moom ma soog a dem du ngeen dem de fenn de àllarba ja waaje dikk ne ko sëñ bi waaje doon wax ne moom moom kër gi ba dina génn de jàpp nañ ko moom ba arrêté ko <laughs> sëñ bi ne ko kon danaa mën a dem soo mun na ko waawaaw mu soog a dem yemuñu foofu de nu dikk France dem Lyon fekk fa taalibeem sëñ Bàkki soxna loo bu ñuy wax Cheikh Ñang moo nu indi Lyon dalal nu këram ca takku ca yoor yoor nu dem ca foyer ba am naaru marocain ko yor bi ñu dikkee ñu ne leen police municipale bi mi ngi ñëw ñu tànn ñi amul kayit ñëpp dugal leen ci néeg yi tëj leen wàcc caabi yi ñu ne sëñ Modou kat mbooloo mi li ceeb dañ leen a tëj ci néeg yi mu ne nañ tijji ñëpp nañ ñëw ñu tijji ñëpp ñu dellu si toog fi moom bi ñu toogee fi moom kenn dikkut ba ñu siyaare ba ñaanante ba añ ba àggale ba dellu ci dal bi ca takkusaan gaa ñi mag juróom-benn dikk ne ko police yi kat ñëw nañu nee nañu liibar ngeen bis ne ki tey fi ñu leen di tere ngeen di filal rek bu leen filal waaye nag bu leen manifester. waaye ku am këyit te ku amul këyit ñëpp a yem ma ne ko man daal sëñ bi dañuy ànd te ma gis yii nga di ko def ma bëgg bu dee laaya alxuraan nga jox ma ko ngir yàlla bu dee xasida gooy jàng nga jox ma ko bu dee looy tari nga jox ma ko waaw mu ne ma wallaahi asim maa ngi jublu penku mu ne ma seex jànguma dara jànguma laaya jànguma dara damay dogu ci kat bar barkeb sëñ Fall te lu ma ci dogum dana am loolu dong la bul defee danaa joxe dara suuf sii ma di leen jox suufu Tuubaa la jàngu ma tifli ci defuma dara damaa tibb ci suufu Tuubaa si rek ne dogu naa ci sëñ Fallu lii ñu leen bëgg a tumu rank yàlla mu ma am jox leen mënuma lii dong la nga xam ne kon ak dogu am na njëriñ waaw li mu yor da koo jënd ci sëñ Fallu ba mu jar sëkk toog nanu fii ci Sam Yabal juróom yent daara yëpp bay gerte gi mu boole gerte gi ak machine yi ak ngooñ mi ak fas yi jox ko sëñ Fallou bi nu génnee ba ñëw fi ma ne ko man day nag lii nga def musuma gis ko ko def man mii sëriñ bi jox na ma ci aw fas sëñ Fallou waa ju sant Juuf a ko yoroon mu ne ma mu ñëw ne ma sëñ bi jox na la ci fas waaye jëlal fasu waa jooju Juuf ma ne ko lii nag kañ la kañ ngay mën a dem ba amaati fas aku jiw loolu laa xamul foo ko jëlwaat mun ne ma daal lépp jox naa ko sëñ Fallu mu def ko ci liggéey bi sëñ Tuubaa bi waaw man bu ko ci defee rek loolu sama xol sedd mu jekkee baru jot ñu soog fay jógee jaar diiwaan si la ci kër na jaar mbajaaneen daal di wuti foofu sëñ Mor Badiane jox ko fa aw fas daal di wuti ci la wunt ban demee ci la wunt bay war a ñëw xombal fa la nu ilimaan Mbàkke fekk na ku kay wuyu sëñ bi mu daal di jógee foofa dikk wuy si sëriñ bi bi nga xamante ne bii asamaan a bëgg a sét bi am nañu fukki fas ak juróom-yaar yoo xam ne ku ci nit ña ko war indi ko bi waaw lépp it nag day wax ne lii may liggéey de sëñ Fallu rek a tax ma di ko liggéey waaw soxlawu ma ci dara su fekkee nag sëñ Fallu taxut lu ma fi ji yàlla mel na xorm lu ngeen bay daan ni Fallu Fallu lu ngeen bay bu sëñ Fallu taxut yàlla bu ci dara ñor bu noppi it noonu la ciy génne joxe ko. amutul bëgg amul lu muy bañ sëriñ bi rek la xol lu bëgg looloo la bëgg lu mu xool looloo la xol loolu mooy jëmmi sëñ mod bu sëjal am ak wayaf goo xam ne gii it mbokk mu agsi fa sa daraja toll dana dara darajaam ba toog ak yow foofu ba ngeen mën caa wax waaw man caa wax man caa jëfante amul mbekk mbokk muy dikk añ jot wala reer jot ñu ne nañ ko tibbal wala nañ nañ bañ noppi amul day teg rek ñëpp su te loolu lu fi jafe la gis naa mu def fii loo xam ne ci moom laa ko jëkkee def alaaji Mbàkke wool ma ñuy sàkku ndimbal te ñuy joxe toog mu woo ñuy sàkku ndimbal ñëpp mu jox leen ñuy joxe moom nañ toog loolu kenn mësu koo dégg waaw dañ daan wax dañoo lëj léeg kenn mënut a lii kenn mënu fee dëkk ak Tuubaa mu mënu fee nekk ak li fiy laaj nangam ak nangam loolu fekku ci Modou Bousso Dieng déedéet fekku ci ku agsi rek mu jox la leen la war a jox muy mbokk mi muy xarit bi muy taalibe bi muy sàkk kuy sàkku ndimbal muy kum xam muy kum xamul waaw loolu moo doon jikko yi sëñ Moodu woyof na baax na fonk na sëñ Fallu fonk gi sëñ Fallu noonu sëñ Fallu fonke woon waa kër sëñ Tuubaa yi ne la sëñ Moodu fonke waa kër sëñ Fallu yi waaw day wax duma leen yemaleeg dara ndax lu ma am seen bàyyi tax ma waaw duma leen jàppantu it dama leen di jàpp ak sama fukki loxo ndax lu ma am seen bàyyi tax man sëñ Modou tekki ko xasaayam ci sëñ Fallu ba bis bi mbóojee yàlla musu koo tekki benn yoon noonu it la sëñ Fallu meloon ci waa kër sëñ Tuubaa wax naa ne jël nañu sëñ Modou jël na oto nu ñëw fii fanaan yi xëy di ko léemulu ba mu dikkee sëñ bi ne ko sama doomi sëriñ bi ne daa bëgg ot aw fas mu ne ko amu ah, ne ko sama doomi sëriñ bii da daa bëgg aw fas fekk sëñ Murtala fa ñu mu ne ko xanaa kon maag Cheikh ñu dimbale nu oto bi delloo nu xaayira te mu dellu si sëñ bi na waaw dangeen di ànd ak buub rekk su ngeen wàccee mu indi ci oto bu bees bu ñu koy wàccee bu ñu bu kii mu jëm Kaolack mu war a vider otoom tubaab bi yor garage bi jox ko fa ab mu ñëw fii mu dem ci sëñ bi sëñ bi ne ba ah, sa sa mbokk mii de dafa bëgg aw fas muy Cheikh Ousmane moom sëñ Bassirou sëñ mun ko wi ma yor de dama ko mu tuba ba ko moom ci garage su kaw lax mu ne ko jox ko ko rek te wax ak tuba ba lu daal wol beuduk fi and ak Cheikh Fall yendu ba ngor yam ko xar ganale ko ba ngan nga ag mu jox ko auto ba carte gis ba mu dem tok nañu fi ba yàgg sëñ Modou Balla di ñew carrière ba mu mesare auto pan mu yoni ci sëñ bi ci sëñ Moodu ne ko waxal sëñ bi ne ko sama oto dafa paan boobu sëñ Moodu nga yor montiru fort bu bees pepp mu daal di koy fab sëñ bi ne ko jox ko jox ko oto mu jëli ko mu daal koy jox oto mu jëli ko ba ndikkee ko sa bay bëgg a delloo si oto bi sëñ Fall ne ko déedéet soo demee ne ko aw fasama na ko wax na ko féete woo sëñ Moodu tegaatu ci baat fetal nga ci sëñ Moodu tegoon sax bañ koy delloo si sëñ bi ne ko ne déedéet ne ko boole naa ko ko fetal bi waaw nga xam ne fa mu fa mu fa ko sëñ Fallu jaral jaralu ko ku yàlla bind waaw fa mu teg sëñ Fallu kenn tegu ko fa moom rek la doy moom moom rek la jàpp jóge nan Maroc sëñ bi yorub jàllaat bi sëñ Modou waxtu sedd la sëñ bi dafa sëñ bi dafa làmb nii rek ñaari yoon sëñ Modou bokk ma ma ñëw mu ne ma ñett ya fa des demal indi ko ma daa di ànd ak ngóor si dikk jël ñetti jàllaat yi ak seeni xaftaan daan koy dikk ni ñu ko ëmbee woon ci kayit mu tàll ko sëñ bi sëñ bi ne ko lii nag mu ne ko damaa gis nga làmb ko ñaari yoon rek mbakke ma defe ne sa bëgg te ñett yi laa ci desewul ndax bii dama koo sol moo tax ma jox la ñett yi sëñ bi ne ko waaw sànq bëgg de ndax sedd bi daa metti loolu te ki dafa baax waaw lii la loolu nag la sëñ Modou nekkee woon ak sëriñ Falilou moo tax damaa wax ne pexe mu ko waay fexeel te du noonu it ci sa war rek lay dellu si musuma gis kenn ku dëkk Moodu bëreeg moom mu daan Moodu maa daan Moodu doo ko dégg moom waaw ku mos a songal ku ne rek joggi na sa bàq ak koo man di doon amul dara yu ju réer ju néew a ci yam waaw loolu nag dara mayu ko ko lu dul ak taalibe ànd nañu ci yoonu dakaar di ñëw nu fekk ku dese sa foto sëñ Touba ak sëñ Fallou mu daanu ci atelier am dana ngóor si dëppan nu dëpp ba dellu si mu ne ko yëkkatil portele bii dessin bi yëkkati ko mu ne mu yëkkati ko mu ne ko aj ko ci ko wala nga jox ma ko ma yóbbaale ko dafa nga ne lii jaadu na ciw loolu ak taalibe mënu ko weesu nit ku amul taalibe la nit ku bëgg mbokk la nit ku laabiir la nit ku tabe la nit ku mën a wàcce boppam ba ànd ak ñépp la nee naa la fu sa daraja toll bu ak dana wàcce darajaam ba toll ak yow foofu ba ngeen mën a wax mën a jëflante mel yeeram it du ko jéggi waaw loo ko digal <coughs> loo ko dama ko dama dama leen ne mel yeeram du ko jéggi te nangu na ndigal ci ñamuy diisool nag lu ñu ko digal mu def ko te bu sa échec amee it dootu tudd ñooña boppam lay moo koy féetewu moo ko yem ne manoon na bu ca échec amee rek mu ne ah Mourtala Mbàkke mu ko digal de wala Eliman Mbàkke mu ko digal waaye du wax loolu da ko yenu lépp daanaka kon de maa def njuumte rek. fekk yow mi ko yow mi nga xam ne yaa ko ko digaloon mu def ko yaa ngi jàkkaarloog moom waaye du la ko tudd mukk ci àddina loolu mooy koy sëñ Modou Bousso Dieng waa kër sëñ Touba yi leen jàppe woon ñoom ñëpp noonu leen jàppe toog nañ fii ba yàgg sëñ Abdoulaye dikk ngóor si ne ko sëñ Abdoulaye booba doonagul xalifa dafa daw ak turki raad li woon ci poos bi mun ko daa ko koy jox daan ne ko sëñ bi wax naa la ba tàyyi ne bu ma soxlaati ba dikk dema woo boo ma soxlaa rek woo ma bu bul jógati mukk ngir man waaw mu ne ko la soxla danaa la wo waye bu bu bu bu su soxla joge it danaa la seet si nag lii la ko wax mu ne ko bëgg ak lu mën rek nga dimo ma woo waaw waaye bul ñëwati mukk ngir man waaw ba mu ñëwee sam yabal da ko jox ab jalla bi mom sa iblaat ne ko fetarug ñaar ngimil la man nga ci togn fayu ci li la lii nganul saam yabal ba magge lolu ko wax Serigne Mourtala dégg ngeen li ma la ci nettali keroog bi courant bi tagee demul kër solution yi moo dem ba ci Moustapha Seck ne ko Serigne bi nee na bu fekkee ne courant bi mënut a kër sëñ sooy bi bu ñu taal Touba. billaahi wallaahi taalaahi lii la wax Moustapha Seck kaw ñu soog a indi poto yi def ko foofa installé nañ kër sëñ sooy bi lu yàgg te xaayira gi amutub làmp ginnaaw bi la poto yi soo a dikk ci xaayira loolu lépp jëfi sëñ Modou tariixa yi des yépp it nag benn bu ci nekk ñëw nga ci sëñ bi bu <coughs> booleel ak sëñ Modou la ngay dox sëñ Modou dox ko ba mu sotti te kenn xamul lu mu doon benn rekk day la ci sëñ bi dawal otoom ba fii ne mu génn mu ne si dawal seet oto bi loolu di sëñ bu saa kooku ne ko sëñ bee mu ne ko yaa mën a sëñ mu ne ko sëñ bee de mu génn mu ne ko solul te ngeen ñëw mu topp ci moom départ daam daraame topp ci Alaaji Baara topp ci dem banque kër Senghor keroog ban dikkee ci fauteuil yi sëriñ bi dafa toog ci canapé bi nu bëgg a toog suuf sëñ bi ne déedéet toog leen ci kaw barab bu ne aada ja boo ko defee moo di ñàkk tekki te seen aada mooy ku ne toog sëñ mën na ko dañuy dem ca saal bee toog ñu dem ca saal bee toog ba Senghor dikkee gisewut ak ma waxutu moom da ko ne Cheikh Tidiane si nii nga jàpp rek laa bëgg nga génne ko tey tey loolu ma indi nee naa la woon warmalal lislaam bi te Seex Tijaan kenn la ci lislaam bi kon nag na gën tey wasalaam maa ngi daan dellu mu daal ne ñokket àndaat ak moom lii noo sëriñ bee ànd def ko waaye sëñ bi nag dafa am lu mbaxoon moom sëñ Falilu danoo toog nun ñëpp mu ne man de kenn du ànd ak man di lompañ di ànd ak man di lompañ la wax de kon war ngeen a xam ne jëlale na ñi mu jur kenn ku sëriñ Faliilu jur doo lompoñ hmm. du kenn na ku mag kee ku ndaw kee ci yam da dem ba yàgg mu jaaxal la waaw ndax bi mu fiy jógee am na ci ñoo xam ne xamuñu xamuñu ko bu baax am na ci ñoo xam ne seeni kaamil àggul am na ci ñoo xam ne ginnaaw bi lañ mokkal waaw waaye loolee mu waxoon na am na <laughs> am na kenn ku bokk ci say falilu nga dajeeg moom yërëm ko wala nga dajeeg moom ne dama koy wutal ndimbal amul loolu nag moo ko waxoon dafa ne woon de man man de waaye Cheikh kenn du ànd ak man di lompoñ man nag jox ko sama ñaar loxo ne ko ndokk de man bi ma ànd yow waaw lii laa ko kon nag daa jëlee leen ñi mu jur jëlee na leen ku ànd ak moom la wax ah. Ah. kon loolee mooy law ba agsi fii tey moo tax ku sëriñ bi jur wala nga di sëtam man ngaa dalal sa xel bu baax ci ne doo lompañ doo tumuranke doo jaaxle dara waaw ndax sëñ lu nee na ma man day seex dama bind kaamil ba xuuge te bëggoon a seex taxut ma def ko bëggu naa ci sama borom rek la moo taxoon ma di ko def ba yàlla àggale ma ci waaw lii la wax am na lu mu waxoon loo xam ne bu ñu ko nettali ci kudul waa kër gi ndax buñ ko diggatee dañuy alku buñ ko weddee dañuy yàqu waaw loolu mo am loolu nag kooku mooy sëriñ fadil mo defar ñepp defar réew mi defar ñepp nak yoon wi bépp moko ko defal moom sëñ fallu ci bopam ñëw na ci ceerno fekk ko so borom daaru nga genn ko gunge di ko génn di ko gunge ba ci buntu kër bi <coughs> mu ne wël bit daan ne yoon wi né ci mom lay amé fak bu dudul lay Thierno wax loolu te dégg nga li ci sëñ Fallu wax daf moo jàngal ban ne ar yar nu ba ne nër yeemu ban ne jar te Thierno ko seere lii kon loola moo di sëriñ Fallu kon nag bis bii <coughs> lii ñu wax ci sëñ Modou lépp ma sa ca fanaan ba asamaan set baat boo wax doo ca dellu ci sëñ Modou bu sa jàng waaw damaa wax ne nonu señ fallu melon ci domi señ touba yi ni la sëñ moodu busu jag meloon ci domi señ fallu amu ci kenn ko xam ki de nga maam dana la gis te jikko la re wala mu tap la paso wala nga bëgg dem mu ne loo dem te añu du ci kenn lolou modon modon jikko yar gone bopam yitam nak nga ne ñemeloowu leen boppam xam leg sax dang ko ci wax mu ne ni lañ ma defoon ndax sëñ fallu def na ko loo xam ne keroog nun ñëpp dañu waal kër àlla ji mu duggee ca mbàkke bool sëñ fallu dafa yendu ba ngoon muy dem daru salaam sëñ tay ba ne sëñ mudu duggal ndax euh, man ngay jinte képp la naa dal ak sëñ usman man ngaa xàcc oto bi ba daru salaam sëñ bi ne ma kon da ngeen di topp si ba daru salaam sëñ mudu nag dugg mboole mi ne ti sa bi mu xaddamee ko sëñ bi geesu na ko wàcce mu wàcc ci biir mbooloo mu daal di toog dox ñëw fii ba ñu ñëwee sëñ bi woo ko ne baa loolee ma la def baa loolu ma la defoon ci mbàkke baa méttiwu la mun na ko lenn rek ma métti de dugg ga ma dugg te yëgoo ko waaye nag ma def ma métti ah. kon loolu mooy jëmi sëñ Modou Bousso Dieng kilifa yi yëpp kenn ku ne amante nag moom ñoom ñëpp nag waaw sëñ Modou Mamoun da ko fonkoon ba mar de tànni alaaji sëñ tàkk waxaale ko moom Modou sëñ Modou rek ko saf sëriñ Modou ab yëpp sama waajur waxaale ko ndax cinquante yee la fa ñëw keroog ba mu fa ñëwee cinquante yee lañ na boole maag moom waaw keroog ak léegi tagguwul fi dama ko daan wax ne du ma la mere du ma la gedd du ma la bàyyi xam nga barab bu ne am na ñuy wax lu baax ak ñuy wax lu bon waaw luñ ko jaxase jaxase ak may damay dem toog mën na cell rek sa sa xam na ma xam naa ko mooy jekki-jekki tàllooto dikk wala mu jekki-jekki ne demal jëlali ma seer waaw ndax dafa bëgg a tukki ku mu wax ci waa kër gi rek ne damay umra gi ne sëñ bi damay ànd moom sëñ bi ne ko déedéet mu ñëw ci sëñ Ousmane bu sëñ ko sëñ bi daal bëggul ma dem mun na ko am ah, mun na ko a kër gi kat daj nañ ci anam dooji te ku ma ko wax rek mu ni kooku kooku du ngeen ànd sëñ Ousmane ne ko da ngaa jóg dem biñ njëkkee sëñ bi ne ko yaa ngi waajal mun na ko ah mun na ko ana ànd dooji sëñ Ousmane ne ko ah moom kat nee na ànd dooji yaa koy wut mun na ko dama yemb si mu daal di ñu daal di yónni sëfur bu ñuy wax Chérif ci sëfur yi kër gi ñëw jël ma daal mu si mu ne ma sëñ Modou mii de day umra day jaar tugal jaar Belgique jaar Caire jaar Beyrouth soog a dem Makka ma bëgg nga àndal moom daan sëñ sëñ Mourou ñu mun ko àndoo jàngeen ay lii moo boole sëñ Mourou tax waxtu bu jógee rek fàttaliku baat ba ko sëñ Fallu waxoon ne ko àndoo jàng yi mu àndal moom oh, lii moo waral loolu nga xam ne moom baatub sëñ Fallu du ko caaxaane du ko sobental du ko fàtte du ko booleeg dara ndax koo xam ne neen lu may def lu ne ci moom lay sukkandiku lu may def lu ne ci moom moom la moom lay dëgërloo te musuma ko sukkandikoo ba jóguma musuma ko dëgërloo ba daana waaw loolu la sëñ moom def kon nag ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di wax ne ku bokk ci sëñ Fallu ku ne sa xel war naa dal war nga am fit waroo ragal dara waaw li ngeen bëgg da ko am سرين بيكون لجي لجو سرين توبا دفل دفل لجو كن لم كم ماي مايو كن فم كو لجار لجو كن كون أن بابا رك أني دين كو أن فيتش أدنى أن كو الله خير وسلام بارك الله فيك نيون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والسلام على اشرف المرسلين والصلاه والسلام على أسرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد xam naa euh, dañuy gàttal kàddu yi rek. nee na xam na nag moom dañuy gàttal kàddu yi rek. kàddu yi cant rek la. nee na kàddu yi nag du kàddu yi lenn lu may kàddu yi cant rek. ndax lii ñuy defal kër sëñ Modou. ndax lii nga xam ne moom la. comité d'organisation bu màggalu Kazu Rajab jagleel sëriñ Modou. delloo ko njukkal. delloo ko njëkkal. faw ngi sant leen. nee loolu moom faw mu sant leen. gërëm leen. gërëm leen. turu njaboot gépp nag. ci turu njaboot gépp nag. njaboot seen xol sedd na. nee na njaboot gi seen xol sedd na. seen yaakaar dolliku na. seen yaakaar dolliku na. seen pas-pas dolliku na. seen pas-pas dolliku na. noo ngi def nag. nee na noo ngi def nag. li nga xam ne moom la yoonu murit baaxoo. li nga xam ne moom la yoonu murit baaxoo. mooy. mooy. jital ki ki nga xam ne fi Serigne Touba. neena jital ki nga xamne mo fi Cheikh euh, Cheikh Ahmadou Bamba. muy Cheikh muntaha mu di Cheikh mamadou muntaha ñaan fu yagg ci fi ñeen ñu ngi koy ñaanal mu yagg fi ci am ko ndibot borom touba ak njabootu borom Touba gep ñaan Serigne abou mi nga xamne di ñaanal Serigne abou mi nga xamne mo fi tok jotaay serigne fadil mo fi tok jotaay Cheikh mamadou Fadal. ci Serigne Mourtada ak njabootam gi teewal ko fi. ci Cheikh mamadou murtada ak njabootam gi teewal ko fi. ñoo leen di ñaanal. ñeen ñu ngi leen di ñaanal. li nga xamne mom la seen mag yi tàmbali woon. li nga xam ne moom la seen mag yi tàmbali. ba ñëwee itam. ba ñu limee ba tey. ba ba ñëwee itam. ba ñëwee ba tey itam. néewoo ñu maa ngi ñëw. néewoo ñu maa ngi ñëw. waaye da bett ñëw rek. waaye da ngaa bett rek ñëw. waaye ni nga ñëwee. waaye ni nga ñëwee. suñu sedd na guy. suñu xol sedd na ci guy. suñu xol sedd na guy. suñu xol sedd na guy. ñoo ngi lay ñaanal. ñoo ngi lay ñaanal. lépp loo bëgg. lépp loo xam ne bëgg nga ko yàlla yàlla yàlla ko yàlla defal. yàlla na la ko yàlla defal. barke sëñ Tuubaa ci barke sëñ Tuubaa. foo ko sedd guy. sunu xool sedd na guy guy guy sunu xool sedd na guy guy. ndax lii. ndax lii. boo ñëwutoon. boo ñëwutoon. duñ ko mën a xam. duñ ko mën a xam. am tax fekk wuñ ko. ndax fekke wuñ ko. waaye waaye waaye waaye waaye bi nga ko waxee. waaye yow mi nga xam ne yaa ko fekkee bi nga ko waxee. dund ko dund ko. xam nañ ko. xam nañ ko dégg nañ ko. dégg nañ ko. kon nag. kon nag. koore ak taalibe ku roy ak taalibe kuy kuy kuy roy ak taalibe kuy roy ak taalibe jikkoy sëñ Modou Bousso jàng noonu jikkoy sëñ Modou Bousso jàng mi ngi noonu ci ak taalibe ci ak taalibe kon nun ñëpp nag kon nag nun ñëpp nag ñu fas yéene doon ay taalibe nan fas yéene nekk ay taalibe duñ man lim man duñ man lim man waaye nañ jë waaye waaye nañ jëm rek waaye ñu jëm rek sëñ ngaa wax ne sëñ bi daa wañ sëñ ngaa wax ne du ma mel mun munumaa mel ni diw. munumaa mel ni diw. waaye sëñ Gaaro yi rek. waaye sëñ Gaaro yi diw nag. sant sëñ Baye Seye ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi bu baax di la. Baye Seye ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. sëñ ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. ñu ngi lay sant bu baax di la ndax ni nga indee jikko sëñ Fallou. ndax ni nga indee jikko sëñ Fallou. royukaay la. royukaay la. képp ku bëgg a roy. képp koo xam ne bëgg ngaa roy. baa nga bëgg lu baax. baa nga bëgg lu baax. dégg nga fi loo xam ne. dégg nga fi loo xam ne. soo ko royee. soo ko royee. dana la jëriñ àdduna dana la jëriñ àdduna dana la jëriñ àllaaxira. su nga sedd na guy. suñu xool nag sedd na guy. dañoo mënta wax nag. dañoo mënta wax nag. waaye li am ci yéene. waaye li nga xam ne moom lañ am yéene. am am am am ah, yéene. am bu ko ci yéene. suñu làmmiñ ñu ko wax. suñu làmmiñ ñu ko wax. ñu ngi sant ñëpp. ñu ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp. Euh, sëñ Mourala. Cheikh Mouhamadou Mourtada. suñu cant jot lañu ko rek. suñu cant nag yow jot leen ñu ko. daal noo ngi nii. ñun daal noo ngi nii. di ay taalibe. di ay taalibe. yu yoo xam ne dañuy dañuy déglu ndigal rek. dañuy dañuy yoo xam ne taalibe yoo xam ne dañuy déglu ndigal rek. fas nañ yéene itam. fas nañ yéene itam. du ngeen dégg ci dara. du ngeen ñu dégg ci dara. ci ci li war a ci lépp loo xam ne waru leen ñu caa dégg. at gi muy wax nag. kaddu gi may wax kaddu gi wax nag. njaboot gépp la ko waxal. njaboot gépp la ko waxal nag. njaboot suñu sa fal itam. njaboot suñu sa fal itam. maa ngi leen leen gërëm. maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. tàmbalee ko ci mag ñëpp rek. tàmbalee ko mag ñëpp nag. ki ci ki ci mag. ki ci mag sëñ Mourtala sëñ Biir sëñ Mourtala sëñ Basiir sëñ Galas ñoom ñi nga xam ne ñooy mag yi. ak seen rakk yëpp ak yëpp. lépp lu ma nekk. lépp lu ma nekk. wallaahi. wallaahi. ñoo ma ci jiitu ñoo ma ciy jiitu bu dee lu ñuy jëf bu dee lu ñuy jëf ñoo ma cee man ñoo ma cee man bu ñu leen seen tànn bu dee lu ñuy tànn ñoo ci ñoo ci ëpp luñ jëf ñoo lu ñuy ñoo ci ëpp luñ jëf kon faaw sel faaw ma sel faaw ma seere ko ci jotaay bii gërëm naa leen gërëm naa leen sant naa leen sant naa leen te yàlla ko seeral yàlla nag laa ko seeral may tam ngi ñaan may tam ngi ñaan lépp loo xam seen waajur wa ëmboon na ko ci yéen lépp loo xam seen wa ëmboon ko ci yéen yàlla nañ ko àggale yàlla na masna àggale mas mu wax mu wax fekkewuma ko nag. fekkewuma ko. waaye da ko waaye dañu wax da ko wax. waaye dañu ko wax ne da koo wax. dafa wax ne. dafa wax ne. képp ku képp ku ñu tudd sëñ Fallou. képp ku ñu tudd sëñ Fallou. maa ngi lay ñaanal. maa ngi lay nga toog sama jotaay bii. na yow la ko waxoon. moo sëñ sëñ Laane moo ko fekk. na yàlla nga toog jotaay sëñ Modou. yàlla nga ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp suñu xol sedd na guy suñu xol sedd na guy so soxna bu su itam soxna maam bu su itam ñoo ngi sant mboolem jigéen ñëpp ñoo ngi sant mboolem jigéen ñëpp di um, bokki taalib yi itam bokki taalib yi itam ak xarit yi ak xarit yi ak wëllër yi ak wëllër yi ak dëkkandoo yi ak dëkkandoo yi fu faay mën a jógee fu faay mën a jógee ñu ngi lay sant di la gërëm ñu ngi lay sant di la gërëm gis nañ seen taxawaay gis nañ seen taxawaay ndax lépp luy woote ndax lépp lu ñu woote ngir jëmmi sëñ bi ngir jëmmi sëñ bi rek yéen a ciy jiitu yéen a ciy jiitu jëf ca jëf ca man ca man ca jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ñoo ngi sant mbokk yëpp borom ñëpp borom ñëpp sant gum ñu sant rek sant nañ ko ko nee na ngi lay ñaanal taxawaay bi yàgg lool ak njabootu sëñ Fallou gi suñu xool guy ku neex rahim ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خمنا سخ وقتي وقتي وقت وقت وقت يجع نينا خمنا نسخ واحد جم من تيجع أنا آه، فاون نجيم خورك واي أنا فاون نجيم خورك نيجي نعلم نوم نوم نوم نجوا خن نجوا خورك واي نيجي نعلم نجوا كم تروح نجوا خورك آه، نيجي نبغى تربيب نيجي نينا ما نيجي نبغى كتالي بيب di jël nuyoo bi sëñ Muntaxa xalifa de Mouride. di jël nuyoo bi ci teg ko ci loxol xalifa général de Mouride Cheikh Mouhamadou Mountakha. yàlla na fi yàgg ca wér. yàlla na fi yàgg ca wér. ak njaboot Cheikh Mouhamadou Bamba gi Cheikh Ahmadou Bamba gépp. ak taalib yëpp. ak bokk yëpp. ak jullit yëpp. ak maa ngi leen di itam ci turu xalifa Cheikh Mouhamadou Fadal. sëñ Abou Baraka. sëñ Abou Al Baraka. ak turu jawriñam. ak turu jawriñam. ak ci kilifa kaddu ki nga xam ne moo yor kaddu kër gi. monsieur Abdoul Fattah. bu ndaw mënoon fi tey. ne nga xam ne bu nekkoon fi tey. moo jël kaddu gi moo jël kaddu gi. gannaaw nekku fi. waaye gannaaw nekku fi. maa ko fi teewal maa ko fi teewal. kon nag kon nag. maa ngi nuyu jullit yëpp. maa ngi nuyu jullit yëpp. di sant yàlla bu baax. di sant nag yàlla bu baax. teewaay bi ñu teew fii. ci teewaay bii ñu teew fii. ci kër sunu mag ju baax ji. ci kër sunu mag ju baax ji. Cheikh Mamadou Moustapha Fadil. Cheikh Mamadou Moustapha Fadil. yàlla na ko yàlla fayal. yàlla na ko yàlla fayal. Cheikh Cheikh mag Cheikh. sëñ cheikh jeuf jere jeuf li nga wax ñep dëgg nañ ko li nga wax lepp dëgg nañ tay lepp lepp dëgg la te lepp nak dëgg la yalla na sëñ fàllu fay yalla na la fallu fay nga yag fi nga yag fi fa nga nek ci keur baay fa nga nek ci keur baay jotaay ba jotaay ba yalla yag lool yalla na yag lool and ak wér and ak wér barke sëñ Touba ci barke sëñ Touba ma ngi nak sama doomi serigne yi fi tew neena ma ngi nuyu nak sama doomi serigne yi fi tew sëñ takku mbàkke ni nii takku tàkku ni ngi nii cheikh ahmadou badawi ak seen mbokk yep ak seen mbokk yep di nuyu sëñ ji li nga xam ni di nuyu sëñ ji li nga xam ne mooy xalifa Cheikh Mouhamadou Fadilou mooy xalifa Cheikh Mouhamadou Moustapha Fadil ak njabaru Cheikh Mouhamadou Moustapha Fadil gépp man day man day Cheikh Assoufay xam na sëñ Modou naam Cheikh Assoufay de moom xam na sëñ Modou waaye man mii day waaye man mii de xam naa ci lu bari xam naa ci lu bari ndax du ma ko wax ndax du ma ko wax 1953 mhm. la sëñ Fall woo sëñ Modou la sëñ Fall woo sëñ Modou da ko demal sëñ Bara Gaye ne ko demal ko sëñ Baara Gaye sëtam ba Abdou Fatah jëlal ma ko andil ma ko sëtam ba Abdou Fatah jëlal ma ko andil ma ko boo fa jógee boo fa jógee jëlal ko Ibrahima Sëy nga jaar kër Ibrahima Sëy sëtam Murtala andil ma ko sëtam Murtala andil ma ko ma ñëw toog ma ñëw toog sëñ Fallu toog sëñ Fallu toog sëñ Moodu toog sëñ Moodu toog sëñ Moodu sëñ Fallu sëñ Moodu sëñ Fallou daal di wax ne sëñ Modou. ñaar ñii. ñaar ñii. dénk naa la ko. naa la ko. lépp lu war ci ñoom. lépp lu war ci ñoom. na ko def na nga loolu defe naa ne. loolu defe naa ne. 53 la kat. 53 la. boo defe naa jotaay bi ñu bari boobu. boobu defe naa ne jotaay bi ñu bari. xamuñu fu nekk. fu ñu nekk. loolu nag. kon nag. lu bari mën naa ko sëñ Modou. lu bari xam naa ko sëñ Modou. waaye du ko wax. waaye du ma ko wax. 53 ba léegi. 53 ba léegi. maag sëñ Abdou Fatah. maag sëñ Abdou Fatah. ba l'an 2000 bi fi bàyyi ko. ba l'an 2000 kon nag sant yàlla bu baax. kon nag nañu sant yàlla bu baax. bi ma ñëwee fekk si ñu di wax. nee na bi ma ñëwee fekk si. si ñaafe di wax. damaa yéemaat sëñ Fallou. damaa yéemaat sëñ Fallou. ndax maag sëñ Fata. ndax maag sëñ Fata. sëñ Modou yóbbu ci waajuram bu baax. sëñ Modou moo ñëpp ca waa juróom boo ca ndindi sëñ Modou ne ko sëñ Modou ne ko ñii sama rakk lañ ñii samay rakk lañ sëñ Fallou ma leen dénk sëñ Fallou ma leen dénk jàngal leen mu jàngal alxuraan moo ñu jàngal alxuraan diir ab diir saa borom ko fa saa borom ko fa mu jox ñu bàyyi góor a sëy mu jox ñu bàyyi góor a sëy lépp nag sëñ Modou ko ànd lépp ñoo sëñ Modou ko ànd magal kasolé gii magal kasolé gii ni ko laaj Njaay waxee nanu yàlla baaxee nanu njabootu suñ fàllu gépp ñoo àndoon ak moom ci taalibe ci taalibe di ko def ba nëgëni si di ko def ba nëgëni si loolu ñëpp nekkoon ci gannaaw suñ Moodu loolu nag ñëpp nekkoon ci gannaaw suñ Moodu rek kon nag kon nag li sax su wax rek li see suñ seex su fay wax rek soof yomb na soof yomb na waaye soof soof soof yomb na waaye sos waaye sos moo jafe màggal gii màggal gii kenn ku xam ne suñ Mouhamadou Moustapha Fadilu moo ko sos moo ko sos ndigal waajur wa ci ndigalal waajuram ba nee na ma bés nee na ma bés sëñ Modou sëñ Fall dane ma sëñ Fall dane ma Modou ñëw ñaan Daaru Salaam Modou kaay ñaan Daaru Salaam ba demee ba ci néeg ba bañ demee ba ci néeg ba mu ne ma toogal fi jàng nangam moo mu ne ma toogal fi jàng nangam ma toog fi jàng nangam ma toog fi jàng nangam diir mu noppi nga nee na ab diir mu ne ma noppi nga mën ko ba noppee nga ñëw ma wax la ne ko ba noppee nga ñëw ma wax la ñëw mu toog nee na mu ñëw mu toog sëñ Fallou toog sëñ Fallou toog mu ne ma Moodu mu ne ma Moodu nit ba bis lépp neex baax bi sëñ Moodu wàcce liggéey bi sëñ Moodu wàcce liggéey alaaji baara taxaw laxasaayu sëñ Mor tàmbale woon fa sëñ Mor tàmbale woon mu sof rek mu sof fa rek taxaw taxawaay bu rafet taxaw bu rafet ko fi borom ko baraka sëñ kii nga xam ne abul baraka Tok jotaayu sëñ Fallou moom tok toog jotaayu tu Tou Tok toog magam ja Tok jotaayu magam ja Moussa Fallou Cheikh Mamadou Moussa Fallou Baar Mbacke Fadou ak Alaaji Baar moom Mbacke Fadou moom dafa wax ni dafa wax ne sant nañ yàlla baax sant nañ yàlla bu baax ndax ndax ñaari gam ñaari mag bi jiitu ñaari mag na ci ci bi jotaay bi xelam orange dal xelam war na cee dal ndax mokkal lu bëri yoon ndax mokkal nañ lu bëri yoon bi yàlla fi yàgg yàlla na kon nag yàlla na ku yàgg ci barke Sëñ Fallou ñoo ngi jili bu baax nag ñoo ngi naan nag sëñ jili bu baax ni ko sëñ Galas waxee rek ni ko sëñ Galas waxee rek lu ngeen sant sëñ jili lu ngeen sant sëñ jili ñun sant nañ ko ndax kilifa kat ndax kilifa kat bu jito bu jito ay rakam ay rakam sës ñoom rek and ay rakam sës ci mom rek ci duñ ko rek ci duñ ko rek yeen ngeen yeen tam yeen jërë ngeen jëf yeen itam lu baax ngeen lu baax ngeen ñu neexa boor ngeen ñu neexa boor ngeen yalla sa wala fay yalla na leen sa borom fay ci lu baax ci barke sa lu baax yeetam señ jil yow itam njaboot gi njaboot gi sa njaboota di leen yërëm di leen yërëm di leen dimbale di leen dimbale di leen toppatoo di leen toppatoo ñëpp na ci gannaaw ñepp na ci gannaaw bo liggéey bo ko sa waji lu ba bo liggéey bo ko sa waji lu lam la denkon lam la mo moo xam ne bu booyut booyut moo jamonoon bii mooy njaboot gii yàlla na na yàgg ci bak si maam bu soy Mbàkke yi ñu ngi lay sant bu baax taxawaay bi rafet na lool ne ak say rakk yow itam ak sa waajur yi ak sa waajur ak sëñ Tuubaa bak sëñ Fall sëñ Jili sëñ xool sedd na guy sëñ Modou dafa am ne mu ne ne lu am xorom dafa am ne lu am xorom dafa am ni ma dafa na ma damaa xëy sëñ Fall suba teel damaa xëy sëñ Fall suba teel di ko siyaare si di ko siyaare si ñu génne neen na yow génnee million. sama diyaa ngi nii. ne ko sama diyaa ngi nii. sëñ Fallou poos bi. sëñ Fallou def ci poos bi. bi bi ñu toogee ab diir. bi jox ko sëñ Modou. jox ko sëñ Modou. ne ko lii de sa jumaa ji la. ko lii de sa su jumaa ji la. million la. million la sëñ Modou ne ko. sëñ Modou ne ko. million bi ma joxoon léegi nag. million la ko. nee na sëñ Fall ne ko. waxal loo bëgg rek waxal loo bëgg rek fasal loo bëgg fasal loo bëgg ma defal la ko ma defal la ko man ko mënuma mënuma fas mu ne ko man kenn mënuma fas fasal ma fasal ma bàjj bi yaa muus mu ne ko ay bàjj bi yaa muus danaa la fasal loo xam ne lii danaa la fasal loo xam ne nii boo jógee fii boo jógee fii loo bëggati loo bëggati yàlla def yàlla def ko kon nag kon nag am na bis nag fii daaru manaan gii am bis nag fii ci daaru manaan gii sëñ Fallou am am am fi am ganug naar sëñ Fallou am ganug naar mu ànd ab ab santam mu ànd ak ab santam sëñ Fallou ni sëñ Fallou fii ma toog day fii ma toog day téeméeri junni ak téeméeri fukk laa soxla téeméeri junni ak fukk laa soxla téeméeri junni yi téeméeri junni yi dama ko yeewee naar bii dama ko yeewee naar bii fukki kii mu àndal fukki kii mu àndal fii fii ma toog day fii ma toog day fekk amu fi fekk amu fi jóge du ma fi jóge ak sëñ Modou ñëw nuyoo sëñ Modou ñëw nuyoo nuyu ko nuyu ko ne ko sëñ Fall ne ko fii ma toog day fii ma toog day dafa am lu ma fi bëgg dama am lu ma fi bëgg loo xam ne mënu ma ñàkk loo xam ne mënu ma koo ñàkk doon mu ne ko loolu lu mu doon mu ne ko téeméeri junni laa bëgg mu ne ko téeméeri junni laa bëgg ak fukk su ma ne ko baax na suñu mut ne ko baax na daal nag suñu am daal nag suñu am ñëw fi xayira gi ñëw xayira gii ubbi coffre-fort bi ubbi ubbi coffre-fort bi wàññi téeméeri million téeméeri junni wàññi téeméeri junni jël fukk teg ci jël fukk teg ci ñëw fekk sëñ Daaru Manaan ñëw fekk sëñ Fallu Daaru Manaan ne ko Mbàkke day ne ko Mbàkke day loolee nga waxoon day loolee nga waxoon day sab bi sab taalu bi jàpp nga ne mi ngi nii jàpp na mi ngi nii téeméeri junni yaa ngi ngi nii fukk yi fukk yi mooy fas mooy mooy mooy moo lax moo lax gi moo moo ko laxasoon téeméer yi ne sëñ daal nooyu baax dañ sëñ Fall nag daal di nooyu bu baax daal ne ko daal ne ko weex weexal bët boo xam ne ko weexal weexal nga bët boo xam ne ku ko weexal sa bët dootu xonq daal dugg ci néeg bi daal di ko dugal ci néeg bi ab tàpp bu fa nekk am na tàpp bu fa nekk tàpp bii ñu ne ko tàpp bii loo ci fas da nga ko am ben xaw anam anam xaw tàpp boobu nag laa xamul ko anam xam naa mi ngi fi fi de xam naa ne mi ngi fi nag xam naa gars yi ñoo ko nëbb rek xam naa gars yi ñoo denc tàpp ba rek kon nag kon nag ah. waaw. moo moo moo moo sant juróom-ñeent fukki. waaw waaw Cheikh Sadibou doomam dafay ñëw. bu amee kuñ koy tëkkaleel. mu ne ko Cheikh Sadibou doomam dafay ñëw. te bu amee kuñ koy tëkkaleel ko dee tëkkale kenn ci saayir. te sëñ Tuubaa buñ ko dee tëkkale kenn ci saayir. Cheikh Sadibou. Cheikh Sadibou. dafa ànd jaamam. ak doomi bàjjanam. ma war leen a jox téeméeri junni. ma te dama ne ko woon bu ma jullee gee. ca maa ngi nii dara ñëwagul. sëñ Modou daal di ànd ak man ak Amidou. sëñ Modou daal di ànd ak man mii ak Amidou. daal di génne téeméeri junni ak fukk. daal di génne téeméeri junni juróom-ñeent fukki junni yi jox ma. jënd dindi juróom-ñeent fukki junni ba ñëwee Daaru Manaan. mu ne sëñ bi la nga doon laaj dee ngi nii. waaye ki joxe téeméeri junni yi. moo sant juróom-ñeenti junni fukki. mu ne sëñ bi ne ko sëggal. mu jàpp ci bopp bi. ne ko weexal nga bëgg boo xam ne ku ko weexal sa bët dootu xonq nee na loolu maa ko fekkee àndoon ca ndawee walaay loolu am am na bis boo xam ne itam am na bis boo xam ne itam sëñ bi daañu xaayara gii sëñ bi dafa ñëw xaayara gii taxaw sama buntu kër taxaw sama buntu kër woo ma ne ma dugal ne woo ma ne ma dugal sax bu dugal sëñ bas taxaw buntu kër sëñ Bas. taxaw buntu kër sëñ Bas. ne ko dugal ne ko dugal. ñu jëm nit ñi ba ne ba jub nit ñi mu ne. ñu demee ba jub nit ñi mu ne. sëñ Bas mu ne sëñ Bas. dafa am lu ma leen bëgg a seeral yéen ñii. daa lu ma leen bëgg a seeral yéen ñii. kër gi ma dëkk ci ndindi. kër gii ma dëkk ci ndindi. dama ko defoon addi sëñ Fallou. dama ko defoon addi sëñ Fallou. boobu boobu kër sëñ Fallou gii. liggéey liggéeyoo ma ko boobu liggéeyoo ko boobu. dama jàppoon damaa jàppoon ne naka du ma fekk naka du ma fekk gannaaw fekk na ma fi nag kon nag kon nag kër gi kon la doom kon kër gi sa kër léegi mu leew na moom kon kër gi sa kër léegi leew la yaa moom muy kër gi nekk dindi muy kër gi këram gi nekk dindi mu ne ma mu ne ma Mourtala Mourtala a am na lu ma la bëgg a laaj. sa doom sa doom. ku doomi sëñ Fallou. di doomi sëñ Fallou. ku la ci gënal. ku la ci gënal. mu dee waxal rek. ma nee naa dama waxal rek. waxal rek Mourtala waxal rek. Mourtala waxal rek. waxal doomi sëñ Fallou. nee ma ne ko xanaa doomi sëñ Fallou. waaw waaw war de. mu ne ko ah a loolu moo war de. gannaaw sëñ Fallou loo moo la ko jox. gannaaw sëñ Fallou loo moo sa doom. moo war a gënal sa doom lu ma sa doom yooyu lu mu am. yaa ko jox yaa ko jox. yow am loo am. loo ko jox ko jox. kon doom yi sëñ Fall nga war a gën a fonk. ni ma ne naa yéen ñii. yéene naa yéen ñii. kenn ku nekk toog di dem doo nekk sëñ Fall. loolu xale bu xale bu ko ñaan xale bu baaxut. nee na loolu bu baaxut. du ko wax du ko wax. kenn ku nekk. kenn ku nekk. boo sañoon. boo sañoon. sa doom sa doom sa doom doon. sa doom ah, kenn dañu wax dëgg rek. nañu waxante dëgg rek. dañu waxtaan wax waaye lii ma wax. ko yóbbu ci àdduna. ndax loolu bëgg ma tale bi yóbbu ko wax yi biir la rek ndax wax yi biir ni waaye waaye nag kilifa mbët kilifa mbët yàlla yàlla musal yàlla nu ci yàlla musal de amuñu ko ñun de amuñu ko boo ko jiitoo boo ko jiitoo bu defal sama gunóor mu mu teg la mu teg la gunóor day gunóor boo ko jiitoo day fas da ngay fa for moom boo toll moom mu ne dama re <laughs> mu ne dama re morom dama boo ko boo ci gannaaw boo nekkee gannaaw mu ne da soog da jóg sama nangam mu ne day jóg sama nangam loolu amuñu ko noonu ñun de loolu amuñu ko ñun kilifa yi am ñun de li ñu am kilifa yu baax kilifa gu baax kilifa yu baax yu lañ am kilifa yu baax yu ne yu laabir yu laabir yu bari teggin yu bari teggin yu tabe yu tabe yoo xam ne kenn ku nekk yoo xam ne kenn ku nekk la nga yéene sa bopp la nga yéene sa bopp sa njaboot moom nga yéene sa njaboot ñun day ñun day sant nañ yàlla bu baax sant nañ yàlla bu baax ñun ñi di wàkk sëñ Fallu day ñun ñi di wàkk sëñ Fallu day kenn ku gis sa morom ku nekk kenn ku ci gis sa morom ku nekk da ko jàpp ngir sëñ Fallu da ko jàpp ngir sëñ Fallu ba ci ñii maan ñii rek ñii maan dañ ñii rek kenn ku nekk su ma gisee kenn ku nekk bu ma gisee sëñ Fall la may jàppe sëñ Fall la may jàppe ma jàpp sëñ Fall rek may ma jàppe leen sëñ Fall ndax loolu suñu waajur ma ne woon ci ndax loolu la sëñ Fall juroo ma ne kon sëñ Jili kon nag sëñ Jili sant nañu baax sant nañ la bu baax sëñ Modou day sëñ Modou day mën na ko fay mën na koo fay neew naa la sax nee naa la woon day mënu ma ci sori mënu ma cee sori ndax dama soj ba dama soj ba mënu ma wax ndax dama soj ba mënu maa wax lii li ma ci wax néew sax li ma ci wax gu néew sëñ Modou ba dimbali rek xam naa ne sëñ Modou ma dimbali waaye nag duma ko mën waaye kon jàppoon naa ne duma ko kon nag jërë ngeen jëf kon nag jërë ngeen jëf teraanga ji teraanga ji wax wax ba mu fa waree ñëw yàgg na lool. ba mu waree. ba mu fa waree ñëw. ba mu fa yàgg na lool yàgg na lool waaye day door a jot nag. waaye a jot nag. jëlal suñu suñu suñu doom sëriñ ji sëriñ Amadou Ba bi. nee nañu di gërëm suñu doomi sëriñ ji sëriñ Amadou Ba bi. moom la sëñ Fata teg màggal ci ci loxoom. gannaaw ay mag lañ léegi. gannaaw ay mag lañ léegi. jox ko ñu xaw a maase moom rek ñu joxaw koo jox ñu xaw a maase moom rek ndax maag moom ndax maag moom day gaaw a sonn day a ko la mënoon ko kon ngeen ñaanal nag kon ngeen ñaanal nag ñu gën fee yàggat ñu gën fee yàggat ànd ak yéen nag ànd ak yéen nag bu ñu màggat mukk bu ñu màggat mukk day na yéen noo ànd ñaan màggal ñu jàmm ki jàmm guddi ki jàmm andi fi jàmm andi fi jàmm barke sëñ Touba barke sëñ wax seen taxawaay rafet na lool gis ni ngeen mobilisé woo ñëw jàpp ci bis bi kon nee na mi ngi leen di sant bu baax moom ak njabootuk sëñ fàllu sëñ moodu gépp sëñ afiye ña ngi itam mm. ñi ngi sëñ bi nee na mi ngi dellu di la sant di bu baax a baax mm. ndax keroog ba ñu demee wax la ko itam mm. danga nga caa di sawar lool waaye loolu moom liñ ci xam ñu ñu yor comité d'organisation bi xam nañ ci dara fii may waxee yow rek dafa gun nag maanaam ñaari conférence cee yaakaar naa ne bàyyeegul mm-hmm. kon waxtu wuñ ko soxlaa rek mm-hmm. boo demee nee na pare naa kon nag ñi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax moom sëñ Afe ndax ci kërum ndindi googu sëñ sëñ Moodu daa yëg cee taasam ba xool kër sëñ Fallu jëmb bi ak guerre bi taxaw mu wàcc ñun ñaar képp ci saal bi mu daal di jooy ma ne ma ma ne ko baa jàmm la du ma ne mu ne ma du jàmm. nii ma defaree sama kër gii. ma defaree sama kër gii. bàyyi kër sëñ Fall gu mu mel nii. bàyyi kër sëñ Fall gu mu mel nii. wool Mourtala. ak Abo ak Abdou Fatah. bañ ñëwee mu ne leen. bañ ñëwee mu ne leen. li feeg defaraguma kër gii. bu ma fi jógee. kër gii mooy sëñ kër sëñ Fall. loolu la leen wax keroog. su ma defaree kër gii nag. sama kër dellu si ci man. loolu la leen wax keroog. jàkka ji ba mu koy defar jumaa ji. ba mu koy defar. ju ndindi ju ndindi ji. daf ne du ma ko bokk ak kenn. dañu du ma ko bokk ak kenn. maa koy def ba mu àgg. maa koy def ba mu àgg. ndax damaa ànd ak sëñ bi. ndax damaa bi. mu ne ma xoolal li ma fi Thierno Fall defal. mu ne ma xoolal li ma ci dëkk boo xam ne sëñ Touba ma ko digal. boo xam ne sëñ Touba ma ko digaloon. xoolal rek lii mel ni ngunul nii rek ngunul ganaar. booba ko tabax ba màgg. nee na booba dañ ko tabax ba màgg. sëñ Modou ne ma nag maa koy defar ba mu àgg. ne ma nag man maa koy defar ba mu Cheikh Ka ñëwee. ak moom mii la woo bi Cheikh Ka ñëwee. mu ne Axma defaral seg bi. mu ne Axma defaral seg bi. Axma defar segu juróom-ñaar fukki millions. Axma defar segu juróom-ñaar fukki millions. 10 millions 70 millions. mu daal koy dagg jox alaaj Cheikh Ka. ne woowu ma ci mbokk. woowu ma ci taali bi. maa koy def ba mu àgg. ndax dëkk bii la ko sëñ Touba digaloon. te da koo fonk. loolu la def. keroog ñoom ñii. muy sëñ Mourtala mii. ak Abdou Lahad ba ñuy jàngi Arabie Saoudite sëñ Modou xëy war leen a xëy yóbbu sëñ Modou war leen a xëy yóbbu ak ak wéré di dab ko ñu ànd dem ci sëñ bi mu ne mu ne ko man de maa leen bëggoon a yóbbu waaye damaa wéré di sëñ bi ne ko ne leen seex mi yóbbu maa ngi ñoom ànd nga xam li tax nga xam ne sëñ bi fonk na leen ba ma leen yóbboo ba ñu àgg ci aéroport ba dugg avion ba. ba avion bi jóg. ma door a ñibbisi. bi ma xëyee ma dem ci sëñ bi. bi ma xëyee ma dem ci sëñ bi. mu ne ma ana ñu. ma ne ko dem nañ. ma ne ko dem nañ. ne ma toog nga ba fafal naaw ko jóg. ma ne ko toog naa ba mu jóg. ma ne ko toog naa ba mu jóg. ba daw lu bëri. keroog sëñ bi oto la ma may. <laughs> jërëjëf jërëjëf <laughs> kon bu ku